asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu daayira Muxaddamatul Xidma Touba ñoo ngi leen di kenn ku ci turam ak santam di leen jëfal ci taxawaay bi waaw waa daayira Muxaddamatul Xidma Touba eh, Milano diaspora ci ndigalu sëñ Daaru Touré sëñ Ibrahima Ndiaye sëñ Assane Diop sëñ sëñ Mbacke Touré leen teewal fii di jébbale daayira bi Muxaddamatul Xidma ndogu yi jëm ci jumaa ji wax dëgg yàlla ku fi ñëw sax xol dana sedd ndax ay junni junni doomu aadama la ñuy joxe la ndogul ci jumaa ji kon ñu doolee góorgóorluwaat laxasaaywaat waaw joxe addiya ji ci weeru koor wi comme niñ ko daan jëfee saa su ne maa ngi ci soññi sama bopp di ci soññi booram jëwlin yëpp ci diaspora bi di leen jaajëfal di rafetlu liggéey bi fii ku fi teew ku ne sa dana sedd ay junni junni nit ñoo fiy ndogoo te junni junni nit caaxaan ndogalu leen xaalis bi weex taal moo leen ndogalu lum néew néew ëpp na ñetti million par jour kooku nag ñu war nañ ci góorgóorlu laxo saayu waat ci soññee ci bu baax jëf ci ba ñëpp xam ne tuuba Milan Touba diaspora Touba Italie seen jëf rëy na ci liggéey bi ñoo ngi ci soññee di ci soñ sañ bopp di ci soñ ñëpp di leen jaajëfal ñun ñoo leen teewal fii de waaye suñu xol sedd na kenn ku ci ne tey boo ñëwoon fii sa xol dana sedd lépp lu kenn doon def boo sañan da nga leen ñëpp sax kon ñu ngi leen jaajëfal bu baax. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, sëñ Saliou ñu ngi lay nuyu di nuyu Serigne Mbacke Touré euh, di leen nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci njiital Serigne bu Bousso Euh, ak ci turu kilifa yi fi nekk si Abdou Lahad bu sa maam Asta mi ngi nii jiite relation euh, commission sociale et relation extérieure ak secrétaire général daayira Muqaddimatul Xidma yi ñi ngi nii toog euh, di leen sant bu baax di nuyu sëriñ Ibrahima Ndiaye Xasida ak sëriñ Daaru Touré di nuyu tamit cellules yi Italie yëpp moo xam Toscana la moo xam Sardaigne di Cagliari ba nga jiite muy sëñ Ibrahima Sey ak ñoom kilifa ya fa nekk yëpp ci taxawaay bu rafet bi moo xam ñu nekk Milan ci Lombardia bi la wala Toscana wala Cagliari muy Sardegna wala Veneto ak fépp rek ci itali ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne yàgg ngeen ko taxaw ci ànd ak mu Muxaddamatul Xidma moo xam ci màggal gi la moo xam ci koor gi rawatina bañ soxla ay machine machine yi yi buub taxawaay bu rafet ngeen ci taxaw kon ñi ngi leen di nuyu di leen yóbbanti nuyoo bu baax a baax ci Eh, sëriñ Mbacke mi di ko yóbbante ci sëñ Daaru Touré mi nga xam ne moom mi mooy kilifaam ci pasteef bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy taxawu ci liggéey bi saa su nekk. ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo nekk Italie ak fu ñu mën a nekk tey dajale seen addiya di ko indi fii ci koor gi mu jëm si ci ndogu yi ak ci eh, li nga xam ne mooy liggéey jumaa ji. ñu xam ne addiya ji agsi na ba jébbale nañ ko incha allah dees na ko def ci liggéey bi. kon nag sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo tax ngeen di jëf yàlla na nangu jëf ji te ful ko ni nga ko waxee lii moom ñun ay lantinoor lañ ci rek borom liggéey bi mooy sëriñ Tuubaa du lenn kenn lépp ñëpp la lu nekk ku nekk ci sëriñ bi nag ku ko jëfal ku nekk moom dana la fay ku lebal ker mu fay la guddi ku defal loo man mu defal la loo mënut ku ko defal loo mënut mu defal la jom te liy rogalaat fii liy feeñ fii du dara ci lim ñuy dig bu ëllëgee ndax sëriñ bi ëllëgoo ko tax a ñun ñëpp soxla nañ yaakaar ngir gisee ak moom ëllëg te digg nañu képp ku koy liggéeyal mu wutal la kër ci digg àjjana képp ku koy liggéeyal mu may la fajuk aajo àddina ak alaxir mooy wax di xaw ay ji lazina daamu fi xidmati wa ablahum marawmu loolu nag lépp a ngi ci biir <coughs> muy ku am yitte wala ku wéradi wala ku am aajo wala ku am soxla liggéeyal Sëñ Tuubaa wala jox joxe ci lu mel nii jàpp nañ ne jëf gën a ko rëy ku ci sëb dërëm demit war ngaa sant yàlla ndax sëriñ bi du nangu jëf ju sellul di def di dem ci barabam bi kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom nag mu yokk tawféex yokk wërsëg yi yokk wér gi yokk jumtuwaay yi bañ mën a liggéeyal sëriñ bi yàlla def tamit xiirtal ci suñuy njaboot suñuy doom ak suñuy sët te may ñu gudd fan ak wér asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.